dal leen ak jàmm mbokk internet yi kan moo faatoon kile di sëriñ xaadim buso kilifa gu ñu xàmmee wante ràññee lool ci waa kër kuréel gi di murit waaye nekkoon na itam di ab homme d'affaires bu ñu ràññee lool ci wàllu njënd ak njaay moom xaadim buso fukki at ak juróom-ñaar ci ginnaaw dañ ko fekkoon ci néegam la ko faat di ab balu feteel bu ñu dóor ca bopp ba ci waxtu woo xamante ni way takk der yi ña ngi ko doon jéem a teg loxo ginnaaw si nga xamante ni kile di xaadim buso dafa rëccee woon kaso te di coowal ginnaaw bi ñu ko tegee woon ay daan ba tëj ko ca la rëccee woon ca kaso ba waaye teewul benn yoon anam bi nga xamante ne noonu la faatoo ëlëboon na doomi réew mi juróon fi ay lënt lënt te ay laaj yu bari samp woon ci ab balu fetel ca bopp ba la sëriñ Xaadim Buso dal di faatoo bu ñu sukkandikoo ci xabaar bi tukkee ci ministère de l'intérieur faatuk homme d'affaires boobule ñu ngi ko nemmeeku ci waxtu ba 6 h maanaam lu xaw a méngoo ak booru fajar bu ñu sukkandikoo ci xam-xamu médecin waa ji yoon jotoon a atte teg ko ay daan dal di koy teg loxo ginnaaw ab mandat d'arrêt ma nga rëccee woon ca prison ba ca bisub àllarba tolloo ak ñaar fukk ak ñeent ci weer ci weeru avril yam tolloo ak ñaar fukk ak ñeenti fan ci weeru avril atum 2003 bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne mu ngi tukkee ci woy takk der yi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko doon wër ginnaaw si nga xamante ne rëccee woon na ca prison ba mooy ne yooyu lee takk der laata ñuy dugg ci néeg ba dégg ab bal bu tàkk ca la ñu daj buntam nekk ba mu làq woon ca benn ci këram ya ca Touba foofule ca quartier gaar bu ndaw xew-xew boobu ma nga am ci bisub alxamis ña nga ko fekk ca biir néeg ba ma nga tëdd pistolet ba dend ak moom deret jay wal lii ñu nettali ci anam gu mu faatoo tukkee ci way takk der ya fa woon daanaka am na ñu ko gëmul woon ba mu juróon ay lënt lënt ci xelub sénégalais loolu moo waraloon ba ay laaj yu bari samp woon ci mbir mi ndax sëriñ xaadim buso dafa xaru am way takk der yi dañoo jum ñu lajji mbaa ñu am rëcc rëcc ca waxtu woo xamante ne ña ngi ko doon jéem a teg loxo yenn ci journalu réew mi jotoon na samp ab laaj ci kàddu nasaraan nan suicide ou bavure policière Serigne Khadim Bousso nag la ko duggaloon kaso bokk na ci baaraamu tuuma yu ko yoon toppoon ci wàllum njuuj njaaj mbuxum ak luubal alal ju lew kam ca doon jàmmar lool ci atteb yoon mooy banque sénégalais bi mooy banque sénégalaise bi di BICIS alal gi aji woon ca mbir ma nag ñu ngi ko xayma woon ci ñaari milliards ci sunu tege ay daan ba tëj ko kaso moom kii li moom mi lay di Khadim Bousso jot na rëcc ca prison ba ana naka la def ma nga jaaree ko yenn ci yoon ci pavillon de des foofu foofule ca hôpital Aristide Le Dantec bu Ndakaaru ca la jaare dal di rëcc génn daal di daw dem kenn xamul fu mu nekk ca waxtu woo xamante ni xibaaru rëccub Khadim Bousso gi ma nga law ñu koy waxtaanee fu ne ci réew mi ca la kii lay di Khadim Bousso dal di woote ci ab téléphone dalee ko fa mu làqu dee bàyyeekoo ci àdduna bi moo ko gënal muy delluwaat ca prison ba mu jot a jóge mbaa di delluwaate ci way attekat ja ca yi yoon xibaaru faatu ak anam gu mu génnee àdduna juróon na ay coow ba taskatu xibaar yi doon ci waxtaan lu bare bari ca jamono jooju laaj bu waa journal Sud Quotidien sampoon mooy li ñu leen tegtal ci kàddu nasaraan ci suñu njëlbeenu kàddu suicide ou bavure policière surnaal ba itam jotoon na xaatim ay kàddu avocat ki nga xamante ne mooy dem si yàlla xamante di xaadim buso gëm yàlla la looloo waral ba li nga xamante ne nii moom mooy xaru moom duñu ko xalaate ci mbirim mi nga xamante ne ni moom la ñu wax li am kay mooy bu ñu fexee ba wax ni ki nga xamante ne mooy sëriñ xaadim buso du faatu ci anam goo xamante ni dafa xaru dooñ daañu laaj nag dëgg-dëgg ana kan moo ko faat daanaka sax journal bi di soleil loolu la bind ci xët mu njëkkam ci yaa appuyé sur la gâchette laata ñuy jot résultat yu tukkee ci ki nga xamante ne nii mooy laata ñuy jot xibaar yu tukkee laata ñuy tukkee ci waa kër docteur ngir xool anam gi nga xamante ne ci la kile di xaadim bu sa faatoo mbir mi juróon na fi aw coow lu rëy ay laaj yu bari samp woon ci mu juróon ay lënt-lënt ci xelu askanu senegal bi ci njëkk mooy jafe-jafe gu tukkee ci ñàkk nangu anam gi nga xamante ne ci lañu wax ne kile di sëriñ xaadim bu soon ci la faatoo ndax Sénégal li ëpp ci réew mi ay jullit lañu rawatina sëriñ xaadim bu sa mi nga xamante ne dafa bokk ci waa kër soxna maam jaaro bu mi nga xamante bamba xaadimu rasuul moom mi samp yoonu murit li xel mënta nangu mooy bokk gi mu bokk ci waa kër diine gu sell googu ba pare di xaru ci waxtu wa xamante ni xam nañu xaru bokkul ci diine lislaam ndax jullit dafay muñ lu mën a tegu ci kawam lënt lënt bi ci topp mooy lu tukkee ci wàllu anam gi nga xamante ne ca la xaadim buso dal di rëccee ca prison ba looloo juróon ab jaaxle ci kanamu askan wi ñenn ci ñoom jàpp sax ni kile di xaadim buso rëcc gi mu rëcc dafa yomb lool ya ma nga ca biir ñeneen ci ñoom di xamle ne way takk der yi jëluñu matuwaay ya war ngir mën a surveiller dëgg-dëgg prisonnier ya looloo waral ba ki lay di Xaadim Buso dal di rëcc l'état bu Sénégal ak doxalinu yoon dañoo am ay rëq-rëq mbaa ñu yenn lu ñu àttanul mbaa ñu tal leneen ba tax farataaluñu kaaraangeek bakkanu doomu aadama yi ci biir réew mi lii itam bokkoon ci laaj yi samp woon ca journal Sud Quotidien bi mujj ci lënt lënt yi nag mooy la Sëriñ Xaadim Buso faatoo wi joxoñ baramu tuuma way attekat yi tey sàkk ñu leeral mbir mi ndax ñu ci bëri gëmuñu woon ne kile di sëriñ xaadim buso dafa dal di xaru moom sëriñ xaadim buso laata muy faatu amoon na ci lu toll ci juróom fukki at dencoon na itam ñetti soxna nekkoon na nit ku am alal te ràññeeku mi ngi tabax ab darajaam ci baatinam ak alalam bàyyeekoo ci askan wu sell ci waa kër diine ku ñu ràññee woon la ci muridiya ànd ak loolu nekkoon na njiital ñaari entreprise benn bi commerce ba ca des ba ca des di IDECOM l'international pour le développement du commerce sénégalo-maghrébien waaye itam jotoon na taxawal ab kuréel gu mag bu ñu wooyee ROES maanaam regroupement des opérateurs économiques du Sénégal Serigne Khadim Bousso amoon na itam ay kër yu bare yi ca Touba ak ci lu ëpp ci région yu Sénégal jërë ngeen jëf